ñu daal di enchaîner ak nga xamante ni moom mooy suñu premier jël comme ni ma koy waxee tout le temps moo consultant dafay tànn ay mbër yoo ni ay mbëru espoir lañ ay mbër yoo xamante ni macha allah ñoo nar a feelu ëllëg ñi fi nekk tey doon ay champion donc euh, tànn nga ki nga xamante ni moom mooy doomu jalaw moo doon bëree ki nga xamante ni moom mooy Yanda pourquoi. doomu jalaw Yanda dañ boole woon jur ñaari mbër yoo xamante ne dañu am ay qualité bëre. Mhm. doomu jëlaat boo gisee mbërum lébu la boo xoolee sax ni muy liyoo ni muy taxaw da ngay gis ne kii bëri bi toujours les privilégiés. que li nga xamante ne mooy xeex bi. yandaa aussi boo koy xool mu bëri yëpp bi sax da koy defaroon rek boo xoolee combat bi dóor sax du ci bëri. Mhm. waaye bëri pire dafa génn nag ak li ñu naan force dëgg nag gis nga kon yandaa dafa xaw a fëkk doole adversaire ba pare nag féete ko position boo xamante ne mu mutu faa rëcc. ci mais nag du ñu leen expliquer explication bari ay bët xool lay jariñ ngeen xool Yanda ak ki mu doon bëreel muy doomu Jalaw. kon boog weeteeg si <laughs> ay te ñu dem. goxoom commencé diriger moom tam gis nañu. ñaari loxo yi daje nañu. donc Fama gis nga ne fii Yanda nuyu na boppam. nuyu c'est nuyu mooy lan. nuyu boppam moom mooy da nga gis ne am na mbir yoo xamante ne buñ la ceinturé dañuy def